technique bu ñu am tax na duñ leen mën a dégtal li ci yéenekaay mais ñu defub jukki rek ci yëglekaay ñu xëy a tey jii mhm. doore kook l'observateur mi xëy ñun ci Ousmane Sonko mi mu ne day dellu ci affaire ma nga léegi ci ordre national des experts du Sénégal tey jii ci suba ci la war a serment fële ci cour d'appel bu tribunalub Ndakaaru libération Mohamed Ould Abdel Aziz président bu Mauritanie la xëye ay kàddoom jëm ci kàdduy tuuma yi moom Sénégal di séddoo ko Mauritanie loole euh, yëf yi kon demeewu ne soleil national mbiru coopération la xëyee ci mu ne ab fës na lool ci ngan gi président Macky Sall doon amal ca Côte d'Ivoire am na juróomi accord yoo xamante ne ji signé nañu ko fa enquête dina kay ñëw ak ñun ci communication gouvernement bi jëm ci wàllu Petro-Tim ak ñàkk déggoog réero gi nga xamante ne ji am na ko ci mooy li enquête xëy fësal kon ci xëtamu njëkk les échos dikk ak ñun ci gaynde Sénégal yi nga xamante ne ji waajal nañu ngir Coupe d'Afrique bi ñu war a suubu journal bi di ñu xamal ne kon euh, maanaam daal dimanche li la ñu war a football waaye mu daal la ñu àndal Ousmane Sonko ak Thierno Alassane Sall daal ci kaw Macky Sall les échos moo ko bind El Hadj Kassé moom la euh, wax ci mu wax bañ koy ngawte ngawte am na leneen lu mu wax yéene kaay bii di les échos noone la ñu ko xëy waxee las xëye ñaari mbir bokk na ci Ousmane Sonko mi dal ci kaw Macky Sall ak euh, nga xam ne ma nga woon démb ca dig ñu ko doon déglu jëm ci enquête bi ñuy def ci xam le moom euh, Pierre Goudiaby euh, Atepa musta laal fiftinu kii di Franck Timis Sud Quotidien xëy ak ñun ci woote mobilisa mobilisation bi Ousmane Sonko def jëm ci xeex scandale bi ñu wax ci wàllu pétrole bi gaz bi nee ñu son kon dellu si na lu aju ci conférence de presse bu mu doon def démb fa la ko waxee moom njiital Pastef gi gi Sud Quotidien ñëw ak ñun ci ay leeral yu bàyyeekoo ci eh, kii di eh, El Hadji Amidou Kassé ministre la di conseil en communication ci présidence de la République El Hadji Amidou Kassé di wax jëm ci fal gi ñu fal Aliou Sall ca boppu caisse dépôt et consignation muy xamle ne Macky Sall mënutoon a def loolee dafa mënutoon def leneen lu dul loolu dafa sësoon maanaam pression bi ñu ko tegoon moo bari moo taxoon euh, mu jël kii di Aliou Sall dénk ko CDC la tribune ñëw ak ñun ci mbiri Petro-Tim ak it euh, biccoog mbaaloo bi am ci ñi fare nguur gi xëy nañu xamal ne Farba euh, Ngom ak ki nga xamante ne ji moo di El Hadj Kassé kon gën nañu dolli bu maanaam gën nañoo dolli ci xar mi euh, karaw direct info janook taskatu xabaar bi Ousmane Sonko doon def démb moom la xëy tey jii ci xëtamu njëkk journal bi nañu Ousmane Sonko dal na ci kaw El Hadj Kassé wax na it euh, nguur gi ak ñi Macky Sall mi ko jiite lu ne waaye it procureur de la République Serigne Bassirou Gueye ak waa Petrosen it Ousmane Sonko ratewu leen benn yoon réew mi quotidien ñëw ak ñun ci xor ñooñal gi ñuy def gone yi ak di